salaamaaleykum amateur de foot yi nuyu ne leen yéen ñëpp ku ci nekk seen tur ak seen ab santa ba tey ñu ngi ci classico Barça Real mu doon match yoo xam ne nar na neex yëngu tegu ci temps waaye Arsenal ak kooku di Liverpool te de blessure yi Arsenal am mais nag coach yi ku ne mu ngi dem di joxe ay kàddoom ci côté Barça muy côté Real. mais balaa dara képp koo xam ne abonné goo suñu chaîne YouTube bu ko tàyyi bësal bouton s'abonner bi ngay liker di commenter di partager nañ wax ci Lamine Yamal la wax ci moom mooy gis ngeen style bu mu indi tey euh, ci match Barça Real bi daf koy préparer bu baax a baax dam yooyu appareil dents yi moom la def couleur bu Barça mu wër monde entier ñëpp di ci wax moom mi noonu pour waajal loole di classico bi célébrer loole di club boobu di FC ab Barcelone ngir wane ne daal en tout cas pare na pour wane boppam bu baax a baax a baax mu doon match boo xam ne daal fu mu ah, wane boppam bu y' a Kylian Mbappé a euh, kooku di Arda Güler Brahim Diaz waaye Barça y' a Pedri Olmo y' a Fermin Lopez y' a Lamine Yamal y' a Lewandowski Pedri Gavi De Jong am nañ Valverde am nañ Tchouaméni nga mi retourné waat waay waay waay Kylian Mbappé Vinicius eh. moom match bee nar a neex yëngu tegu ci temps waaye it ñaari coach yi seen i kaddu dinaa ci ñëw njëkkee ko bu kookee ñu naan ko Ancelotti moomee nag génn na ba yey ay kaddu génnee ko di leeral ñu ñu wax ko Ancelotti mu génne la saison dernière il était important que Bellingham parce que il était important euh, ba ba kooku di Bellingham parce qu'il marquait des aussi parce que aussi tamit euh, y avait plus euh, Karim Benzema c'était normal buy marqué ñu kontaan ci loolu nag dañoo manqué woon ku leen di dugalal nag amuñu woon attaquant mu saison nag nous n'avons pas besoin de ses buts saison bii nag soxlaaw ñu ay biyam kooku di Bellingham nous avons maintenant un joueur qui marque trente ak quarante bi am na joueur boo xam ne mu ngi dugal lu toll ak trente ba quarante bi kon nag nanu xalaat leneen bu baax a baax a baax mu ngi noonu ne nee na nag Bellingham am na importance ci lan lañ ko soxlaa ci milieu terrain bi mu jàppale baax ci côté récupération mais aussi di indi bal bu baax a baax loolu mooy rôle am en ce a des joueurs yu marqué bu dugalee nag loolee luy neex lay doon waaye exige ñu ko à ce que par la force doole mbaam mu war a dugal Bellingham am il dafa baax loolu Ancelotti génn wax nee il progresse mu ngi yëngoo di yokk am yokkute bu baax a baax il est en bonne forme mu ngi ci forme bu baax a baax ses buts ne sont pas important pour nous ay butam amul solo pour ñun na ses qualités sont ailleurs mu ngi noonu ne il sait à quel point il est important pour notre jeu xam na ci moment ak ak anime bi mu amee solo ci seen football loolu Ancelotti génn wax nee na des plans pour arrêter Lamine Yamal loolu lañ ko laaj mu ne leen la vérité c'est qu'il est spectaculaire j'adore son style de jeu et son attitude euh, nit la boo xam ne nii vraiment ku neex xool muy football la il est exceptionnel euh, il est spectaculaire ba pare yamaatul foofu dafa bëgg façon bi muy footballé en plus nee na dafa bëgg nii nga xam ne mu ngi koy doxalee ci biir terrain bi attitude am il est très dangereux ku naqaree marqué la ku naqaree football la ku ku yéeme la mu ngi noonu ne vous ne pouvez pas vous concentrer sur un seul joueur mënoo di bàyyi xel di euh, concentrer wu ci benn joueur képp Koundoung nee na il y a beaucoup de joueurs à Barcelone qui jouent vraiment bien am na yeneen joueurs yu bëri yu nekk Barça yu joué ci anime bu baax a baax kon nag mënoo concentré wu képp ci Lamine Yamal ne da nga koy taf Carlos Ancelotti ba tey mooy wax nee na est-ce que Barça peut jouer avec une ligne défensive haut euh, contre vous nag Barça mën na football daanaka pressing haut benn ligne défensive boo xam ne nii dafay haut daanaka défenseur yi ci lañ Badiane bi la ñuy nekk ñu laaj ko loolu mu ne s'ils le font alors nous devons savoir attaquer les espaces efficacement nee na bu ñu ko defee dañuy jéem a xam nu ñuy euh, attaquer Barça sëppu leen euh, attaque leen ci espace yi jour de couloir yi ñoo exploité li ni mel ngir mën a euh, créer loole di occasion franc concrétiser ko nee na j'ai quelque chose de prévu pour demain am na lu ma denc pour suba mu ngi noonu vous le verrez et ensuite vous pouvez vous pourrez ma diir si j'avais tort ou non après nag man ngeen a dinaa ko indi li ma denc noonu suba ngeen gis ko ngeen wax ma nag dama nee na nous allons rester simple dañuy mel euh, oyof tellu comme dañ ko yàgg defee je ne peux pas en révéler davantage mënuma cee wax dara li ni mel Ancelotti wax ba tey ne Mbappé il sait ce qu'il doit faire demain xam na lu mu war a def suba euh, il a joué contre Barcelone et nombreuses fois nee na football na ak Barça yu bëree bëree bëree bëri nee na nous en forme am nañu ci forme et motivés aussi avant le match de demain euh, mu ngi noonu ne avant match suba bi daal ñu ngi ci jàmm ak salaam ba pare am yéenay football bu baax a baax nous savons que c'est mais ce match c'est un match difficile mais aussi divertissant nee na xam nañ match bu metti lay doon waaye match bu nara ibbeeku boo xam ne ni daal dina euh, daal indi loolu loo xam ne ni daal maanaam gën nañ ne xel bu daal lañ ci demee daal nous voulons bien faire devant nos supporters bëgg nañ def lu baax a baax devant suñu kanamu supporters foofee ca Santiago Bernabéu kookee di Ancelotti génn di wax ñu wax ko Ancelotti ñu ne ko perdre le sommeil cause de Barcelone mu ne leen personne ne peut me faire perdre le sommeil nee na kenn mënu ko ay nelaw mu ngi noonee kon nag loolu leer na ñu naaj ko nag mën ngay ñàkk ay nelaw nag euh, Barça mu ne leen kenn mënu koo ñàkkloo ay nelaw ba mooy wax raison de l' amélioration du Barça cette saison lan moo indi euh, Barça amélio amélioration bu baax a baax saison ren bi ne vais pas rivaliser avec Xavi et Hans du ma nekk fi rivaliser avec Hans Flick euh, mu ngi noonee kooke et, euh, on fait, un excellent travail ça veut dire un travail bon solo c'est une différente et nous respectons au, ce Barça tout autant que l'équipe de Xavi dans l'équipe bu wuuteeg ba woon Xavi la waaye dañoo respecte équipe bu Xavi Barcelone a changé changé sa philosophie Barça changé de philosophie am doxalinam il joue de manière plus verticale dañuy jouer ci anam bu gën a jub jëm ca kaw mu ngi noonu plus facile la ci anam bu yomb mais je ne veux pas comparer le Barça de Xavi parce que nous avons perdu quelques fois contre lui nee na bëggul comparer séparé Barça bu Xavi ak bii nag ñàkk nañ ci bu Xavi ay quelques matchs mu ngi ne nous respectons les deux versions du Barça dañoo respecté ñaari version Barça yépp loolu la Ancelotti génn wax ci forme bi Barça am jamono ji Carlos Ancelotti ba tey wax ci Vinicius remportera le ballon d'or il ne peut pas y arriver quelque quelqu'un d'autre pour la gagner nee na amul keneen ko mën a gagner ku dul Vinicius Vinicius le futur vainqueur du Ballon d'Or a beaucoup progressé Vinicius futur Ballon d'Or moom i nag mën naa ni am na yokkute bu baax a baax a baax mais il reste très humble mais nag dina gën a oyof yoon bu euh, wàcce boppam comme le jour où je l'ai pour la première fois comme jour bi moo ko njëkkee gis ci euh, premier jour am mu ngi noonee kookee di Ancelotti génn euh, di wax ba tey nag ñëw ci kan kookee ñu naan ko Hansi moom i nag génn na qu'est-ce qui signifie Euh, qu'est-ce que cela signifie euh, pour vous de jouer pour euh, pour vous de jouer votre premier classico lan lay waral lan lay indi nga football sa premier classico noo ko gisee Flick répondre leen pour être honnête pour wax dëgg rek je n'y pense pas beaucoup du ma ci xalaat sax lu bëri nee na mon mon objectif est de préparer parfaitement l'équipe sama objectif sama bëgg-bëgg mooy euh, tàggat équipe bi ci anim bu tegu ci temps anime bu mat sëkk les joueurs sont motivés joueurs yi daal euh, am nañ euh, mën naa ni gëm-gëm am yokkute bu baax a baax ci li ñuy def pour jouer la match am na ñu envie jouer match bi am yëg-yëg football match bi et moi aussi ak moom it ce sera une belle rencontre na doon daje bu neex a neex a neex Hans Flick wax na ba tey nee nous on est je am nañ suñu système bopp je l'ai pour le Bayern Munich et qu'il faut s'adapter à chaque match nee nag am nañ seen système bopp wax na ko contre Bayern Munich te it dañ ko war di def chaque match di ko teg ci anime boo xam dañ ko maîtriser dañ ko moom mën ko nous l'avons fait euh, lors des matchs précédents et nous le ferons nañ ko match yi passé waaye dinañ ko def contre Madrid Real Madrid qui est une équipe avec des joueurs de très rapide ki est une équipe avec des joueurs équipe la boo xam ne ay jour yu gaaw la am mais j'ai pleinement confiance en mon équipe waaye it dama am confiance bu baax baax bu yaatu yaatu ci sama équipe de nombre entraîneurs sont attentifs au nombre de fois où nous laissons notre nos adversaires hors jeu c'est notre philosophie nous devons faire mieux que mercredi euh, waaye it mu doon style de jeu boo xam ne nii mën naa ni euh, soit atu bi mooy que équipe adverse bi day def hors jeu wala soit yow nga mën a di presser équipe adverse bi euh, récupérer bal dem dugal def loo ko erreur waaye it tarfatit ay ni boo ko ci yenn erreur défensif wala sa placement d'essai normal wala nga am équipe adverse bu gaaw boo xam ne ay contre la ñu am mën nañ ko exploiter ba rey la mu doon match yoo xam ne nar na meex yëngu tegu ci temps su filik euh, ñu laaj ko ñu ne ko un jour de repos euh, en moins que Real Madrid ñu laaj ko nag benn match boo xam ne am na benn jour boo xam ne Real moo leen ko ëppale pour noppalu mu ne leen euh, nous ne nous ne pouvons pas changer cela mënuñoo changer loolu la Real Madrid a joué mardi et nous avons joué mercredi mais nous sommes capables de gérer juste deux jours de repos et nous continuerons à le faire loolu dara Real benn trois jours la propos ñu am deux jours loolu dara nañ ko jéem a continuer gérer ko à notre manière jéem a gagné match boobee loolu Hans Flick génn ah, di leeral jóge ci match Barça boobee ñëw ci kan kooke di tot ah, Arsenal bi football ak Liverpool am ay absent yu bëree bëri actuellement muy Timber ah, Tomiyasu Calafiori Saka Odegaard ak Saliba mu doon loo xam ne nar na metti trop ay titulaire indiscutable am ci mm, équipe am dañoo leen dañoo absenté ci ci match la bu baax a baax nag actuellement moom vraiment manqué na ay joueurs top mondial yoo xam ne ay titulaire indiscutable la ci club war a jàkkaarloog Liverpool mu ngi noonee gars loolu nekkoon xibaaru tey ji euh, ne abonné goo sa bouton s'abonner bi ngay like di commenter di partage loolu ngeen ñu mën a stori bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def leen jox xibaar matin midi soir jaar ngeen jëf